ñetteel bi mooy ismu bi jiitu xabar gi mujj loolu jàngoon nañ ko ci darsu bi weesu moo doon tënk bu njëkk bi tënk bu ñaareelu mooy dañ koy nasaboo dañ koy binaal su fekkee ismu laa gi dafa laaf wala mu ni roog lu laaf te mooy dara jokk ci di tënk ci loolu kii dégg nga dégg nga eh, nu mu ko misaalee sax laa taali an déet aji sentu jabalan doj xaajirun daa ji teew Euh, nekkul séntu rek waaye séntu doj la kon taaliyaan dafa néew lu laaf ndax dañ koo tënk ci jabal comme ni ñuy tënkee mu daaf ci mu daaf yi léegi su boobaa bu laafee wala mu nirul laaf su boobaa dañ koy nasab taaliyaan ismu laa mansuubun ngay wax la saaxiba ilmin manquutun saaxiba ismu laa mansuubun nga dafa laaf su fekkee laafut nag nirul lu laaf te mooy mufrad su boobaa binaal ci lañ ko waroon a iraabe bu nekkee ismu mufrad wala jëmu taksiir dañ naan mum ñu ala fatat la rajula fi daari rajula ismullah mum ñu fatat ngay bu nekkee musanna ñu ne dañ koy binaal ci yaa ndax ci lool lañ ko waroon nasabe bu nekkee jama muzakkar saalim ñu ne dañ koy binaal ci bu fekkee jama muannas saalim nag ñii dañ koy binaal ci kasra ñii ne koy binaal ci fata loolu mu doon gëstu ñaareel ba kañ koy binaal ak kañ lañ koy dégg nga mm, euh, irab eh, maanaam kañ lañ koy nasab buñ ko irabee nag benn masque lay am buñ ko binaalee benn masque lay am buñ ko irabee ñu lañ ko nasab ñaari masque dégg nga laa taali an waaye bu laa fi moom benn masque lay am la saaxiba ilmin waaw su fekkee nag dangaa baamu laaga ni ki laa xawla wala quwata foo wax naa ne ism bu njëkk ba ci gannaaw laa bu njëkk ba mën na fatxa bu fatxaye bu ñaareel ba mën naa fatxani moom nga ne laa xawla wala quwata bu ñaareel bi mën naa nasab laa xawla wala quwatan bu ñaareel bi mën naa rafaa laa xawla wala quwatun bu rafaaye wala mu nasab ñaari masque bu fataaye nag benn masque laa xawla wala quwata laa xawla wala quwatan laa xawla wala quwatun boo ne wala quwata nag dafa nekk ismu laa comme nu laa xawla xawla nekk ismu laa boo ne wala quwatan dañ ko xatfu laa gi liggéeyut quwatan danañ ko at fi ci maxallu xawla ndax dafa nekk fi maxalli nasbi ndax dañ ko war a nasab boo ne wala quwatun nag quwatun dañ ko at fu ci maxallu laa ak xawla ndax laa gi ak xawla gi yëpp ñoo ñoo nekk fi maanaam rafi mubtada loolu waxoon nañ ko eh, kon boo ne laa xawla wala quwata nga baamu ko nga baamu laa gi bi njëkk bi mën naa fata te su boobaa bi ñaareel bi ñetti anam lay am fata nasab rafa bu njëkk bi ni mën laa xaw lun su rafaa yi ñaare maskare to laa xaw lun rafaa rek la wala mu fata wala quwatun nga at ko ci xaw lun wala wala quwatan wa déedéet wala quwata nga e, nga liggéeyloo laa ak ñaareel ka waaye du mën a nasab nag ndax bu njëkk bi comme que dafa rafaa dafa nekk fi maxali nas bi kon juróomi anam la mën boo baa moo laaga ci ismu bu boobaa moo laa isim bu bi fata wala rafa rek moo mën a laa xawla wala laa xawlun isim bu ñaareel ba nag boo fatahaye bu njëkk bi ñetti anam la quwatan quwata wala quwatan wala quwatun wala quwata loolu ñett la ñetti anam yooyu moo mën a am boo fatahaye xawla bu fekkee da rafa xawlu nag nga ne laa xawlun ñaarel bi wala quwa tundak le moo ɗon wala wala quwata mais ɗuma nafat nag mëna wax wala quwata kon nga da gis ne booba moo laaga isum bu njëkk bi ñaari anama ci jaatu fata rafa la xawla wala la xawlul bu ñaareel ba nag juróomi anam moo ci jaadu ñettee ma ngay topp ba nga fataaxee xawla mooy wala quwatan wala quwatun wala quwata wa ina ñaari nag ma nga topp xawlun ma nga rafaayee nga koy mën a wax mooy wala quwatun ak wala quwata saa yoo waxee wala quwata bu ñaareel bi nga fasaa ko da ngaa jëfloo laax ak ñaareel ka ndax boobaa moo laa gi mën nga leen ñàkk jëfloo mën nga leen jëflu saa yoo nasabee bu ñaareel bi ne wala quwatan dafa topp maxallu xawla ndax fi maxalli nasbi la xawla ismu laa mabni ala fata fi maxalli nasbi saa yoo rafaayee quwatun nag bu fekkee da ngaa rafaawal xawlun da nga ko harfal ci lu rafa bu dee da ngaa fataawal xawlun nag dafa nekk dafa topp maxallu laa ak xawla ndax laa xawla day tax ñu ne ah kon jumla bi yëpp mooy laa gi ak xawla gi dafa nekk ci maanaam fi di mutara kon boobaa moo laa gi juróomi anam mooy jaadu ci ismu ñaareel ba ñetti ba nga fataaxee ismu bu njëkk ba la topp yeneen ñaari rek ba nga rafaaxee ismu bu njëkk ba waaye ismu bu njëkk ba moom rafaa rek mu ci jaadu wala fatha du nasab bu fekkee nag da nga atfu isim bu njëkk ba te baa mu watoo laaga ni ki laa xawla dégg nga waa quwatan su boobaa moom laa xawla moom rek la mën a doon fatha rek moom dafa amul nasab laa xawla rek ngay wax gi dañu ñaari rek mën a doon mooy nga nasab ko mu topp maxallu xawla nga ne xawla wa quwatan wala nga ne laa xawla dégg nga wa quwatun mu topp maxallu laa ak xawla ndax fi maxalli rafi la waaye nag doo ko mën a fata ndax laa gu gu ko gu koy binaal ci fata amut ci maanaam baamuwaatu laag kon boo ne laa xawla wa quwatan rek ngay mën a wax wala wa quwatun laa xawla gi it ndem baamuwaatoo laa gi liggéey rek la mën a doon laa xawla dañ koy liggéeyloo laa xawla wa quwatan nga ne waaw arfaat fa quwatun maatubun ala mahalli hawla wala nga ne laa hawla wa quwatun waaw gi arfaat fa quwatun maatubun ala mahalli laa hawla ndax ñoom dañoo nekk ci maanaam fi musal baax su boobu def naa moo doon ñeenteel ñu ñëwoon ci bu fekkee ismu laa gi da nga ko wutal naab su boobaa ñetti takk-takk rek ngay jàpp pour que ñetti anam yi mën a dagal mooy ismu laa nekk mufrad mufrad bu ñu ko waxee mooy laafut niruwul lu laaf naatu bi tamit nekk mufrad mooy laafut niruwul lu laaf te diggante ismu laa ak naatoon bi dara séparé wul bu ñetti anam yi amee naatu bi dagan na mu nasab dagan na mu fataa dagan mu rafa naatu bi bu rafaayee xamal ne dafa topp maxallu laa rajul ndax dafa nekk fi maxal rafi بنفده dafa top mahallu rajula na dafa nek fi la yu bokul ci rajula mo nek fi mahalli nasbi bu fekke nak dafa fatani mom dañ nan rajula gi ak natom bi dañ leena boole def len comme ben baat comme ko ben baat la nak dañ nan la gi mo len binal ci fatar rek ni nga boole khamsata asra def ko ben baat niki la rajula man nga zarifan zarifun zarifa fi dari laa rajula déet benn góor zarifan bu tedd mu topp maxallu rajula zarifun bu tedd mu topp maxallu laa rajula zarifa bu tedd nga ne ñoom ñaar dañ leen binaal ci fata fi daari kon gis nga ismu laa gi mufrad la laa fu nirul laaf naatu bi mufrad la laa fu nirul laaf te naatu geeg ismu laa gi dara séparé loon dañoo sose sosu soobaa naatu bi ñetti anam yii moo ci dagal loolu lañ waxoon laa rajula zarifan zarifun zarifa fi daari su fekkee nag ismulaa gi e, nekkut mufrad dégg nga ni ki laa saaxiba ilmin déet borom xam-xam su boobaa bari fan ngay mën a wax mu nekk naatu ci lu nasab ndax ba saaxiba foofu moom dafa nasab moom moom binaa léegi sax nekkul maxal nasab dafa nasab laa saaxiba ilmin déet borom xam-xam bari naatu ci nasab dafay nasab wala zarifun ndax laagi ak saaxiba dañoo nekk fi maxalli raf yi di mubtara laa saaxiba ilmin déet borom xam-xam nga ne ah kon laagi ci boppam ak ismoom ñoom dañoo nekk fi maxalli raf yi di mubtara kon seen naatu mën naa rafa mais nag doo leen mën a boole ne benn baat lañ parce que ñaari baat nga mën a boole def leen atte benn baat waaye dëgg dëgg moom ñetti baat kenn du ko boole di ko def atte benn baat kon doo mën a wax laa saaxiba ilmin zarifa nee ñom ñoom ñëpp benn baat lañu bina lañ ci fata mu nekk wax ñetti baat kon su fekke sa te nga waxoon ben dëf cee xëtt benn dëf ci xëtt moy lan moy ism bi si boppam laaf wala mu nirul lu laaf bu fe ni ki la laa saaxiba bu ba zarifan zarifun waye mënu leen boole comme ben baat parce que ñett la nga naan la saaxiba elmin zarif parce que ism bi dafa laaf bu ism bi niroo lu laaf dégg nga ismu lu la mooy mooy laa taalian déet aji yéeg jabalam zarifun waaye mun wa laa taalian jabalan zarifu zarifa <laughs> déet boobu boole comme benn baat parce que naatu bi moo laaf ni ki laa rajula déet benn góor saaxiba ilmin wala saaxibu ilmin dégg nga bu nga defee saaxiba nag da nga koo nasab ndax dafa topp lu dafa nekk fi maxalli nas bi dafa nekk dafa topp maxal rajula ci maxallam rajula fi maxal nas bi la nga ne laa rajula saaxiba ilmin saaxibu góor bu yaakaar ne ko booleeg rajula nag binaa lañ ci fataa déedéet mom lu tax mu amee benn masque parce que dafa laf motax tax la ne laa rajula saaxiba ilmin wala laa rajula sahibu ilmi ñaan anam rek mo fa dëgg su fekkee eh, dañ né la laa rajula taali an jabalan laa rajula dit goor taali an dañi du aji yëg jabalan taali an naatu la ci rajul dañ koy nasab wala né la laa rajula taali un jabalan waaye mënoo wax laa rajula taalia parce que ñetti baat mo leen boole comme benn baat su fekkee dafa am lu leen séparé ñoom ñaar nga ne laa rajula fi daari نعم ظريفا ولا ظريف ولا من وح ظريف كنت تكتك بدال موي اسم الله بوكو في النعط لأن جاء برغم سوفيك اسم بي اسم الله مفرد لا نعط مفرد مرام لا فوت نيرو لولا تدقين تي اسم الله جاء نعط بي درسة بارو لين سوبا نعط بي من نيت أنا من نانسب توب محل اسم الله ولا مرافعة توب محل لا اسمه ولا بوغي بنا كنت فتاة moo ismulaa gi ñu jàppee leen benn baat buñ biraa su fekkee ne ismulaa gi nag defa laaf wala mu niru lu laaf wala naatu bi laaf wala mu niru lu wala ismulaa gi nag ak naatu gi am lu leen séparé ni laa rajula fi daari su boobaa naatu gi mën naa rafaa topp laa ak ismoom ndax na maxalli rafee naatu gi mën naa nasab topp maxallu ismulaa ismulaa gi dama nasab waaye naatu gi moom mën na boole ismulaa gi ñu benn baat parce que benn dafa am lu leen séparé wala boog ñetti baat la ñetti baat kenn du ko jàppee benn baat mënoo wax laa rajula fi daari zarifa ne moo zarifa ak rajula comme benn baat la am na lu leen séparé déedéet am naan laa rajula fi daari zarifun wala zarifan su ko defee yi mooy yi nga xam ne waxoon naa ko ci ñu jàngoon nañ ko ci ñu ci mm, mm, bunt mu ñëw ci ajurumi bi jaaraat nañ ci tënk yëpp mu ne baabu laa li may buntab laa eelam xamal an na laa ne laa laa naa fel liñ si lañ nag tan si dafay na sof an kiraat waxoon nañ jàngoon nañ laa gi liggéey amul lay sa bokku ci laa naa felul jins tan si day na sof an kiraat kon mu ngi jàngale ne ismu bi ak xabar bi nakira lay doon rek ila rajula fi daari ila rajula kainun fi daari bi xayri tanwin yi ci dudul tanwin hmm? loolu it moom nu ko jàngalee façon la daal su fekkee da ngaa binaal baat bi du am tanwin mais boo ko nasabee te laafut moom waaye dafa niru laaf day am tanwin ila taari an jabaran indana ay kaa'inun indana wa am na tamit ay bu dee dañ ko binaal nag comme naa rajula du am tamit ida baasarat bu sësee a nakkiratu nakk rek wala mu tatakaratu ba amul laa laa maanaam takk-takk bi mu wax mooy laa naa fee jint dafay nasab ay nakira mooy ismu bi nakira lay doon xabar bi nakira lay doon mais nag ismum bi doo ko tanwin loolu mooy su fekkee dañ ko binaal doo ko tanwin wala boog mu laaf waaye kay bu fekkee dafa ñëw lu laaf ismum bi da nga koy tanwin waaye mu ne nag ismu bi na sës ci laa gi na jiitu xabar ka dégg nga kon sart yi ma jàngoon moom la moom la doon tënk sarte yi ñu waxoon moom la doon tënk mais ni ko ko tënkee moo xaw a kii sart yi mooy ismu bi na nekk laa naafee laa gi na nekk laa naafee li jinsi na ismu bi xabar bi nekk nakira loolu mooy isa basharat ak nakiraat te ismu bi na sës mooy isa basharat bu sësee maanaam ismu bi na jiitu xabar bi ñëw ni ki laa rajula fi daari laa rajula kaa'inun fi daari kon laa gi naa feeli jinsi la moom ñaari nakira la dugg mooy rajula ak kaa'inun te ismu bi moo jiitu xabar gi rajula moo jiitu soo baa ñetti saati dajale mooy ilam am na laa tën bu nakiraat bi xëyri tan min isa basharat man nag li ma intéressé mooy laa dugg na ci nakira nakira gi sësantira maanaam moo jiitu xabar gi ñëw ñetti saatu yi mu ma njëkk intéressé yooyu mooy sart yi tax laa gi liggéey liggéey inna mooy mu nekk laa naafeelu jins ismu bi ak xabar bi nekk nakira ismu bi jiitu xabar bi door a mucc loolu mooy xamal ne laa dafay nasab nakira nasab bi intéressé wu ma li ma nasab li ma intéressé mooy ismu bi xabar nakira lay doon bi xëy tanwin ci mi kooku ñëwaguñ ci waaye nakira gi mooy sës loolu moom moo ñetteelu sart bi mooy ismu bi mooy jiitu xabar bi topp loolu mooy isa basaral bu sësee ak nakira kon ñetti sart yi ma waxoon moom tënk na ko ci biir mooy laagi naafee li jinsi lay doon ismu bi nakara lay doon ak xabar bi ismu mooy jiitu xabar bi doon ñoom ñetti sart yi bu amee rek dafay liggéey liggéey indi léegi nag ndax day nasab nakara yi wala boog dalil binaal kooku waxoon naa ne bu fekkee dafa laaf ni ki laa saaxiba ilmin indana kooku dafay nasab bu niroolu laaf ni ki laa musaafiran ilaa Europa indana koo xam nga musaafir dañ ko tënk ci Europe rek kooku dafay nasab ñaari yooyu lay nasabee mais bu dul loolu moom bu fekkee laafut moom ismu laa ga niruwul laaf kooku dañ koy binaal ca lañ ko war a irabee laa muslimayni indana laa muslimina indana laa muslimaati wala muslimaata ndax bu dee jama mu anna saam dañ koy binaal ci fata wala kasra indana laa rajula indana laa rijala indana dañ koy binaal ci liñ ko war a nasabee bu fekkee laafut niruwul laaf kon tan ci bu googu mu wax dafa laaj teqale bu laafee wala mu nirul laaf bu dul loolu dañ koy binaal ci luñ ko war a nasab noonu la ko waroon a bi xëy tanwin ni gi mooy bu fekkee dañ koy binaal ismu laa gi benn masque la am ni ki laa rajula wala laa rijaala waaye sax bu fekkee dafa nekk jëma muzakkar saalim wala musanna moom sax du am masque far ni ki laa muslimayni wala laa muslimina bu dee ne jëma mu ana saalim tamit benn masque la laa muslimaati wala laa muslimaata moom mën nañ ko binaal ci fata amma bu fekkee nag dafa dafa nasab tamit te te laaf benn masque la ni ki laa saaxiba ilmin bu fekkee dafa nirulu laaf moom kooku day am tanwin kon bi xëy tanwin ngi génn ci bu niroolu laaf ni ki laa musaafiran ila Europa foofu day am tanwin dañ ko nasab te tanwin ngi dafa leneen ida baasharat nakiraat mooy ism gi dafay jiitu xabar gi topp moom mooy ñetteelu saxtu loolu mooy sart yi ma waxoon walam tatakarar te baamul laa laa loolu jërul takk laa gi moom boo ko baamoo dafay ndagal nga jëfloo ko wala nga neenal ko moom laa la waxoon ne boo baamoo laa gi ni laa hawla wala quwwata bu njëkk bi mën koo liggéeyoo ne laa hawla mën nga koo boo ko liggéeyoo ne bu ñaareel bi mën nga koo liggéeyoo muy laa bu nekk liggéey na bu nekk binaal ne euh, maanaam euh, ismam bi binaal neexee bu ñaareel bi nga neenal ko waaye nga xatfu ko ci maxalu xawla ni ki laa xawla wala quwatan mun a xab wala nga xatfu ko ci maxalu laa ki laa xawla wala quwatun mu rafa loolu fi maa dara xawla nag fi maxal nasbi boo neenalee bu njëkk bi ni ki laa xawlun donc boobu da nga koy rafa boo ko neenalee boo ko binaaru rek xawlun kooku la xawlun mubtara la bu ñaareel bi mën nga woon neenal moom ci xawlun maa ma tafala marfu marfu la hawlun wala quwwatun wala nga liggéeylooti bu ñaareel bu njëkk bi du tax nga bañ a liggéeyloo bu ñaareel bi la hawlun ci nasab parce que hawlun dafa rafa yu mel noonu nag ñaareel xabar bi dañ koy dagg la hawla kaayinun illa billahi ak yu demee noonu dégg nga ñaareel xabar mën ko dagg ni la rajula fi daari ay kaayinun fi daari Hmm. kon wax ju mu wax ne te laagi baamu dafay mel ni sàtte yi dañ ci boole laagi bañ a baamu pour mu liggéey te fekk laagi bu baamoo man nga ko liggéeyloo bu njëkk bi man nga ko bañ a liggéeyloo bu ñaare bi tamit noonu laagi daal bu baamoo takk-takk bi mooy la la waxoon ci dars bu njëkk bi liggéeyloo ko muy laa xaw la bu ñaareel bi nga liggéeyloo ko wala nga abtu ko nasab ko wala nga rafaa ko laa xawla wala quwatan laa xawla wala quwatan laa xawla wala quwatun bu njëkk bi nga neenal ko laa xawlun xawlun foofu mubtada la xabar bi ñu xasab ko bu ñaareel bi nga rafaa ko moom wala quwatun kooku moom maatu fala marfooy la wala nga ne wala quwata liggéeyloo bu ñaareel yaa xam ta kon nga séparé ko ni ñu ko waxee woon mooy gën a yomb nii mu ko jàngalee dafa fasu mais laa naafeeli jins ñetti sart la dafay nekk laa gi day nekk naafeeli jins ismu bee xabar bi yëpp nekk nakira الاسم بيجي في قبر بدو نيو نيت ساتي موي تخ مو نصب الاسم فاصل نانا كو دنج كو نصب ولا نكو بيران غاني بلا في ومنير الله دنج كو نصب سن كو نصب نك بري ريف نير الله نيار ماسك ريزن بنير الله بن ماسك بو فكي نك لاف نير الله دنج كو بينال سي لنج كو ورا نصبه جمو تكسير اسم مفرد دنج كو بينال سي فتا جمو مانسارم دنج كو بينال سي فتا ولا كسر مصنع jëm muzakkar saalim ñu gënaa ko ci yaa waaye nag moom saa yu amee moom te laafut maanaam ñu war koo binaa benn masque moom moo am béykat yi seen wiin baamu nga laagi wala baamu nga laagi beneen baxsu waaye bokkut ci sart yi tax laagi liggéey liggéey yu inna bokkut ci sart yi tax ñu war koo nasab wala ñu war koo bina boo baamu laagi bu njëkk bi dafay dagan nga liggéeyloo ko muy xawla wala nga neenal ko ne laa xawlun bu ñaareel bi nag boo liggéeyloo bu njëkk bi mën na koo topp maanaam bu ñaareel mën nga ko liggéeyloo ni moom mën nga koo neenal xatfu ko ci maxallu xawla mu nasab mën nga koo neenal tamit bu ñaareel bi xatfu ismi bi ci maxallu laa xawla mu rafa kon boo liggéeyloo bu njëkk bi bu ñaareel ñetti anam lay doon quwatan quwatun quwata quwata nag mooy liggéeyloo nga bu ñaareel bi quwatan mooy xatfu nga ko ci maxallu xawla قوتن حد فنگو چی محل لا حول دنا لا حول دیر پخینا كون لا جي اك حول دي مستراري لا گوب دي فورا نصب كون حول دي نكو بيران چي فتا باسكو لا فنيو لا واي في محل نصب لا نيك كون بو چات فو من نصب بوبا مولا گي من كون نينا لا حولن سايو نينا لي نك اندي نياري مست باسكو مستراري فو لا لا حولن wala quwatun wala wala quwata mais doo ko mën a nasab parce que xawlun comme que dafa rafa mu ne nekk ci maxal nas kon boo baamoo laa gi loolu mooy ndax wa comme misaal mi laa rajo leen benn xeetu góor fi daari di nekk ci kër mu indi nag du sart yi xëttee wax naa ne dafa am foofu ay baxsu baxsu bu njëkk bi mooy yenn sart moo tax mu liggéey liggéey laa naafeelu mooy laa jins ismum bi xabaram bi da nekk nakira ism bi na jiitu xabar bi topp bu lii amee rek dafay liggéey liggéey inna dina sabli sim rafa xabar nga ne waa ma ne waa dañ koy binaal wala dañ koy nasab bu laafee wala mu niru lu laaf dañ koy fekkee laafut niru lu laaf dañ koy binaal saa ñu ko binaalee mu am benn masque dañ koy binaal ci liñ ko war a nasabee saa ñu ko binaalee nag mu am masque rek benn masque la suñ ko nasabee nag mu war am masque bu laafut maanaam bu nekkee lu niru laaf ñaari masque boo mooy ñaareel mooy boo baamoo laagi nga ne bu njëkk bi mën nga koo liggéeyloo bu ñaareel ba mën nga koo liggéeyloo ni moom wala nga xatfu ko ci la xawla munasab wala nga xatfu ko ci maxallu xawla mu rafa ñetti anam yooyu moo ci bu ñaareel wala bu njëkk bi nga neenal ko mu rafa bu ñaareel bi rafa ni moom looy ci lu rafa kee dafay rafa wala boog bu ñaareel bi nga liggéeyloo ko kon boobaa moo laa ñaar yëpp bu la neex nga bu ci neex nga leeral bu njëkk bi ñaari anam la mën doon fata rafa bu ñaareel bi juróomi anam la mën a doon ñetti yi topp mooy fata moom wala rafa ñaari topp rafa ga mooy ba mooy ni moom wala fata nga liggéeyloo ko loolu mooy ñaareel gëstu moo waxoon la nag boo baamuwul laa gi taxat fu ca foofu ñaari anam rek bu njëkk moom benn anam ci liggéey loo rek parce que baamuwoo laa gi force dafa war a liggéey kon sart yi tax mu war liggéey force yëpp daje na ni ki laa xawla dégg nga su boobaa bu ñaareel bi rafan lay mën a doon ni ki laa xawla wa quwatun wala boobu nga nasab ko laa xawla wa quwatan bu rafaanee topp maxallu la xawla laa gi ak is moom bu bu nasabee topp maxallu xawla rek waaye foofu moom mënu mënu ko binaa ci fata parce que indiwoo laa ak ñaareel ba koy liggéey do yi mooy ñeenti baxsu ya ma waxoon bu juróomeel bi jàngaloon ko mooy boo ko wutalee naxtu waaye waxoon naa leen ne bu dee ismu laa gi mufrad la maanaam laafu nirulu laaf naatu bi laafu nirulu laaf seen diggante dara séparé wu leen naatu ba dagan na munasab rafan nga binaa ko ci fata laa rajula zarifan zarif zarifa fi daari bu rafaaye dañ ko dafa topp maxallu la rajula bu nas nasabee dafa topp bu buñ ko fataaye moog rajula leen boole def leen benn baat binaa leen ci fataa nga day gis ne bu fekkee benn ci ñoom ñaar mooy ismu gi ak naatu gi dafa laaf wala mu ñuul lu laaf mënoo leen boole kon benn baat su boobaa kon naatu ba rafaa la mën a doon wala mu wala mu nasab waaye mënoo ko binaal ci fatwa ndax mo leen def comme ben baat nako noonu bu ñu amee lu leen séparé nek ki daa fi daari naatu bu zarifan la wala zarifun waye mo leen def comme ben baat parce que ismu bi ak naatu bi xam lu leen séparé yi moy baxtu yi ci am mom la en nag bu saat fi li mu en ni moy bu saat yi ni mu ko jàngalee dafa fasu ci téré bi mu ne fa in lam yubashirha bu de sesante wut manam ismu bi jitu xabar gi top ci loolu mom moy bu saat bi xëttee bu saat bi xëttee laa dootul nasabati du liggéey ci liggéeyu illa subaa da nga koy leeral mubtada xabar nga am mooy bu sësu maanaam boo jiitalul ism nga indi xabar gi comme waa wajaba war na arafu rafa mooy mubtada xabar la ni ki mu laa laa fiiha xawlun laa xawla déet lu yàq xel fiiha di nekk ci sàngare àllaaxira subaa laa gi naa fee la xawla ismu laa mabni ala fataati parce que laa fa nurul laa فيها جار مجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبره لا لكن لا غول كائن فيها جزم يوم نجد فيها جي مجي غول جي كون سوبا اسم مو مجو خبر جي جيت كون اسم بي سسوت لاجي سوبا ليغي بي دا ياخذ ليغي تي عملو ان دا waxon na ñett sarti moy tax mu liggey jëfu inna muy wara ne mooy xabar bi jiitu ismu bi su boobaa da nga koy rafaa mubtada xabar laa fiihaa xawlun fiihaa laa gi laa uh, muhmal la wala laa harfu nafsin rek la fiihaa jaara majruur mutaariku bi mansuub nekk xabaru muqaddam xawlu nekk mubtada mu axar loolu lay wane fa lam yubaashirhaa bu ismu bi sësu ci laaga wajaba war na arafu rafa wajaba war na takraaru nga baamu laaga moo tax naan laa fiihaa xawlun wala hum anhaa yunzafuun wala hum go hum mubtara la yunsafuna fi'l ak faa'il moo nekk fi maanaam fi xabar mubtara anaa jaar ma ji aju ci yunsafuna kon su fekkee xabar gi moo jiitu ismu bi souvent foog nga baamu laaj te foofu mubtara xabar rek nga mais mënatul liggéey liggéeyu indi parce que sart benn sart yi moo waxoon xëtt na mu lew na felam yu baasira bu ismu bi sësu ci laaga wajaba war na rafu rafaa wajaba war na takraaru laa baamu laaga ñaareelu saatu bi xëtt mooy su fekkee nakira maanaam ismu bi ak xabar bi du duñ nakira maanaam ismu bi bu nekku nakira soo boobaa it tara xabar la mi ki laa zaydun fi daari te foo nga baamu laa git laa zaydun fi daari wala amrun zaydun mutara laa naa harfu nafi la zaydun mutara la fi daari jaara majruur nekk xabaru zaydun waa gi harfu harfu la laa gi na fi la amrun maatufun ala zayd wala maatuf ala marfu marfu noonu rek la kon waxoon mooy tax mu liggéey amul inna mooy ismu bi ak xabar bi nekk nakira bu loolu amul rek su boobaa mubtada xabar ngay am te foo laaj la zaydun fi daari wala amrun boo nee laa zaydun fi daari rek moom moom wala amrun su fekkee xabar bi moo jiitu ismu bi xabar bi moo sës laaga su waaye it foo mubtada xabar rek nga koy érabé te foo الإطلاق لكن لا فيها غول ولا هم ينزفون عنها amma bu dee laagi nekkul laa naa feere jinsi nag moom dañuy xool laagi lu mu doon rek laagi naa naa xiira na gisam mu daaro laagi amul dafay dàq kenn dàqul ñaar dégg nga su boobaa ni ki laa rajulun fi daari mën ngaa wax ba rajulaani benn góor nga wax nekku fa waaye dàqoo ñaar wala ñett su boobaa dafay liggéey amul laysa laysa moom dafay rafaale si mu ne sa xabar ni ki laa rajulu laa rajul dégg nga laa rajulun kaa inan fi daari suba na la si bu xamul lay liggéey kon fii lim ci doon rek mooy bu sàtte yi xëttee bu sàtte yi xëttee du liggéey ti mukk amalu inna loolu la doon junj fii laa gi bu nekkul laa fee naa fee doon nga xool loolu li muy liggéey laa googu li muy liggéey nga liggéey ko mën naa nekk xarfu nafiin mën naa nekk naahiya dafay gisam feeñ mu daaram naa دينغ nga euh, waaw waaw xaal lam xarf hmm, euh, na وقلب تتكرر في مدار مجزوم بلم ولا متسمع سكون ظاهر الآخرين لم تتكرر لا لا فاعل تتكرر مرفوع ولب مبني على السكون في محل رفع نحو خبر لمنكر المعذوب تقدير وذلك لا نافية للجنس رجل اسم لا مبني على الفتحة في محل نصب في حرف جر الدار اسم مجرور بفي ولا متسارع الكسر على العلاقي والجار المجرور متعلق بمعذوب تقديره كائن خور لا ف حرف عطف إن حرف شرط جازم يجزم فعل الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه لم حرف نف وجزم وقلب تباشر في المدار مجزوم بلم ولا متسم سكون غير الآخر ولها دليل متصل من غير السكون في محل نصب مفعول به وفاعل آه، تباشر آه، دمير مستتر تقديره هي والجملة في محل جزم فعل شرط جملة تباشر وجب فعل ما من الفتحة عرف فاعل مرفوع بدم والجملة في محل جزم جواب شرط وعرفات وجب فعل ما من الفتحة معطوف على وجب الأول في محل جزم تكرار فاعل وجب مرفوع ولا مطرف فيه الدم الظاهر راقب ومضاف لا مدافر من السكون في محل جر له خبر المبتدا المعذوف تقدر ذلك لا نافية ولا ولا حرف نفي في حرف جر الداري اسم مجرور بفي ولا متجري الكسر دار الآخر والجار والمجرور المتعلق بمعذوف تقدير كان الخبر مقدم رجل مبتلى مؤخر مرفوع لا مترفع دم دار الآخر واو حرف حرف لا حرف نفي امرأة المعطوف على رجل المعطوف على مرفوع مرفوع ولا مطر فيه الدم الزايا على آخره فعرف حرف إن حرف شرط جازم يجزم الفعل الأول بسبب الشرط والثاني جوابه وجزاؤه تكرر فعل الماضي من الفتاة وتاء علامة التأنيث والفعل من المستتر ينتقد وهي جاز فعل الماضي من الفتاة يعمل فاعل مرفوع ولا مترف أدم الظاهر العقيب ومدافع الحاد من المتحد من سكون في محل جر مضاف وعرفت في الغاء معطوف على اعمال والمعطوف على المرفوع مرفوع ولا مترف أدم الظاهر العقيب ومدافع الحاد من المتحد من سكون في محل جر مضاف اليه فعرف عرف إن عرف شرط جازم يجزم فعلنا أول فعل الشرط وثاني جوابه وجزاؤه فإن تكرر جوج تكرر جوج فعل ماضي لم هناك في محل جزم فعل شرط جاز فعل ماضي لم هناك في محل جزم جواب شرط إن حرف شرط فعل نه أو أول فعل شرط وثاني جواب وجزاء شيت فعل ماضي لم من سكون الجزائي بتاء متحرك وتاء من متصل من الفتح في محل رفع فاعل والجملة في محل جزم فعل شرط قلت فعل ماضي من السكون الجزائي بتاء متحرك وتاء من متصل من الفتح في محل رفع فاعل والجملة في محل جزم جواب شرط لا لا في نافية للجسم رجل اسم لا من الفتح في محل النصب ولا ما اسمها في محل رفع بالمبتدا في الدار في حرف جر دار اسم مجرور بفي ولا متجر الكسر في والعاقل والجار مجرور متعلق موظوف تقدير كائن قبر لا واو حرف عطف لا بوك رفعه لا امرأة بوك رفعه ويكلا نافية امرأة لأن مبتدا مفعول لأن امرأة واو حرف حرف نف امرأة معطوف على محل لا رجل والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مترفع دم الظاهر إلى آخره بوك نسبه ولا امرأة واو حرف حرف لا حرف نف امرأة معطوف على محل رجل والمعطوف على منصوب منصوب ولا مترفع فرد الظاهر إلى آخره بوك فتاة من هو فتح الله نافذ للجنس امرأة اسم الله منصوب ولا مبني على فتحته في محل نصب والخبر معظوم تقريره في الدار دل عليه ما قبله لكجيت تكتنه ولم رأت ولا امرأة في الدار واو أطفال من إن حرف شرط جازم يجي من فعل الأول فعل شرط وثاني جواب وجزاو شيت فعل وفاعل في محل جزم فعل شرط قلت مو فعل وفاعل في محل جزم جواب شرط laa gi naa fi yëpp li jins rajulun mubtada marfuun wala mutarafa damar zaarat ala axiri fi daari jaarun majruur mutaaliqun mansuubun taqdiru kaamin xabaru mubtada waaw gu ñaareel ga xarfu atfi laa gi naa fi tul jins imraata ismullah مبني على فتحة في محل نصب وقبر معذوف دل عليه ما قبله تقديره في الدار ونقول امرأة تمن وهو حرف في الله حرف نفي امرأة معطوف على رجلون معتبر مرفوع مقبول مترفع ضمير زائد آخره ويمنع هذا إن وجد الإسلام استعنت توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته